kàddu di bañ seen ànd ak réew yu tubaab yooyu di European Union nee na loolu am na maanaa trop te itam loolu feeñal na ne nag réew réewi Gambia day e, nit ñi ñoo xam ne ni ñu bugg seen boppa lañ ñu yëg seen boppa lañ gannaaw boo xamee ne nii suñu réewi boppa lañ ñoo gàddu suñu boppa moom suñu boom moom suñu réew te nag lii dafa feeñal màcca goo xam ne nii am nañ ko nekk ay doomi réew yu baax di ay nit ñu soppa suñu réew ak itam wane nag ñor goo xam ne ni ñor nañ ko ci wàlli politique ci jamono ji nekk nii ci réew mi fii nee na e, li nga xam ne nii nag moo di yokkute yi nga xam ne nii am na ko ak itam feeñal goo xam ne nii nit ñi feeñal nañ liñ soppee seen réew ci Gambie fii loolu tax na nag ren li nga xam ne ni moo di màggali ñeent fukkeeli at ak juróom-ñetteeli indépendance bi moo di nag réew mi day réew yi boppam la ak itam nag boole kook soppa sa réew ci e, liggéey réew wala boog e, tabax réew président ne na waa Gambia li nga xam ne ni nag moo di réew moo di ne nit ña fa dëkkee ñoom ñoo koy taxawal bokka nekk ay xeet ak ay askan ànda ci benn jubluwaay ak benn pas-pas eh, lu boole leen nag loolu moo lënkale eh, nit ñi ñu nekk réew nee na nag suñ bentee jëlee mbir moomu leen pour taxaw nag nekk li nga xam ne nii moo di sa doomi réew yaa li mooy feeñal nag moo dina yow de danga nga eh, soqeekoo ci ay nit wala ci nit ñoo xam ne nii nag eh, nekkuñ benn place ñu booloo ànd benn jubluwaay ak benn mibit ci loo xam ne nii bugg nañ ko eh, te nag loolu nekk na mbir moo xam ne ni ñu ngi koy wéer ci saa yu ci nekk rek suñ doxee eh, ni nit ku ñuul ak itam ci suñ mbiri aada yoo xam ne nii moom lañ fekk baax ci suñu réew. bente itam gën a yombal wax jooju leen moo di ne rek li nga xam ne nii moo di réew mu taxawal boppam lim feeñee rek moo di gàddu sa boppa amee sa boppa moo ca gën. te nag nekk na mbir moo xam ne nii yaa ngi taxaw jot na pour nag li nga xam ne nii moom nga yelloo ak itam taxaw ci sa soxlaay boppi réew ak sa soxlaay loo xam ne nii dafa yéwénal sa dundin comme aadama doomu aadama ak itam yéwénal li nga xam ne nii moo di yokkute ci wàlli koom yi programme ak lépp loo xam ne nii nit ñi soxla nañ ko jaarale ko eh, ci pello yooyu leen ci nag li nga xam ne nii moom lañ wéeru ak itam nit ñi li nga xam ne nii moom lañ soxla nekk ay doomi réew Eh, loolu tax na nag ñun ñëpp war nañoo jéngu ñu taxaw nekk benn eh, déggoo su ko defee nañu aar li nga xam ne ni moom lañ am ak moom lañ moom ak itam nag déggoo ñu ni neen jaarale ko ci li nga xam ne ni moom lañ noo dundee ci réew mi fii comme rek ni mu ko waxee moo di ñi nga xam ne ni ñoo eh, taxawoon nag fàcc seen tànki tubéy pour xeex li nga xam ne ni moo di independent yi Africa pour Africa moom seen boppa nga xam ne ni ñoo taxaw na xeex ba fi mu nekk ni réewi nit ñi ñu li génn ci noteel loolu tax na nag ñu ñëw taxawaloon mbootaay gu ñu xamee ci Organisation of African Unity ñu xamee ko ci OAU nga xam ne mbootaay googu leen léegi soppale nañ tuur bi def ko African Union nee na nag président Jammeh nee na ci July 22 1994 fukki at ak juróom-ñett ci gannaaw moom itam mu taxaw eh, jaay bakkenam pour nag suqali li nga xam ne nii moo di réewi Gambia pour gën a defaraat réew mi mu gën a nekk réew moo xam ne ni réew mu yëwén laa doon ci àddina si taxawal boppam nee na nag lim jaayoon bakkanam ci réew mi fii nekkul ne daf ko jaay eh, pour nag or nit ñi wala boog jaay réew mi ci beneen réew wala ci beneen mbootaay defewut ko loolu daf ko defoon pour suqali réew mi pour njëriñi réew mi ak afiyaay waa réew mi nee na loolu tax na nag bi nga xamee ne nii toog na ci nguur gi ees taxawaloon na kuréel gu ñu xamee ci civic education panel nga xam ne ni eh, mbootaay googu leen nekkoon na ñoo xam ne ni ñu ngi leen sasoon pour ñu yee nit ñi ci li nga xam ne ni moo di seen wareef pour taxawal réew wala tabax réew ak yokk réew ak itam doomi réew gu baax na bés ni tey nag am na mbégte pour feeñal ne li nga xam ne ni moom la mbootaay googu leen taxawe woon ci nguur yaayam eh, yokkute yu leen fi nga xam ne ni fii la réewi Gambia tollu tey alhamdulilah gannaaw boo xam ne ni réewi Gambia tey fi mu nekk nii ñor nañ xomm ci wàlli politique ak itam xam nañ li nga xam ne ni moo leen war ak xam nañ li nga xam ne nii moo di seen àq ak lépp loo xam ne nii moo baaxut ci réew mi itam xam nañ ko ba ñu war a boddi ci loo xam ne nii neexut leen ne na ci fukki ata ak juróom-ñett yi génn nii moom day nguuram saa yu ci nekk rek mu ngi doon gis ne réewi Gambia ak waa Gambia saa yu ci nekk rek fu mu mun a nekk ci àddina si ne ñu eh, xàmmee réew mi ak waa réew mi jox leen li nga xam ne nii moo di seen cër ak seen àq comme ay nit ci ne na loolu moo nekkoon loo xam ne nii moom la doxal ci àddina si yëpp nee na ci nga xam ne ni nag moo di yokkute yi nga xam ne ni am nañ ko ak itam yiñ tiral yoo xam ne ni liggéey nañ ko ba nga xam ne ni nag dégga na réew mi ba nga xam ne ni muy buleet lu mos sa am ci réew mi am fii ci wàlli ay yokkute taxawal nag ay bunti liggéeykaay ay banqaas yoo xam ne ni li yëpp dafa gën a dëgëral sarta ak programme yi nguur gi ak waa nit ñi ak itam nag gis ne lépp loo xam ne nii moo di eh, afiyaay nit ñi ak seen wàlli koom-koom li yëpp ñu taxawal càqa yooyu leen pour mu jëriñ nit ñi nee na li nga xam ne nii loolu la loolu jur moo di rek pour ñëpp am loo xam ne nii moo di dunda bu yiwén ci réew mi fii dunda bu gën a baax ak itam nag nekk nit ñoo xam ne nii dañoo gën a am eh, bunta yoo xam ne nii dinañ ci mun a jaar comme doomi réew la ñu def li nga xam ne nii moo di seen àq ak itam seen wàll ci wàlli yokkute réew mi suñ ko seetee ci réew mi fii Eh, ñu ngi léegi lañ gën a eh, jàppante gën a taxaw nag nekk benn ak itam nag ci bitim réew ak lépp loo xam ne ni nag moo di eh, xëjamal turi réew yi Gambie ci biti loolu yëpp wécceeku na gannaaw boo xamee ne ni nag fi mu nekk ni réew mi gën nañoo njaxlaf ci seen taxawaay ci biir àddina si léegi la léegi gën a njaxlaf ni ki ni meloon balaa mooy ñëw ci nguur gi nee na nag li nga xam ne nii nag moo di yokkute yooyu leen yëpp Eh, dëgga dëgga dëgga duñ ko mun a fàtte ci réew mi fii foog rek ñu feeñaloo leen ci réew mi gannaaw boo xamee ne ni ay mbir la yoo xam ne nii réew yi Gambia mosuñ koo xalaat waaye moom indi na ko mu am ñëpp janook moom te nag li nga xam ne nii nag moo aju nag ci ñi nga xam ne ni ñooy taxaw eh, pour nag xëta wala boog yàq li nga xam ne nii moo di eh, yokkute yu leen wala jëm kanam yi fi am yëpp nekk na yoo xam ne ni lépp lu ñu war a bàyyi xel la su ko defee nag buñ ko war a nangu nee nag yéen ñi nga xam ne ni yéen a koo déglu di ko seetaan ne na eh, taarix si wane na nag ay mbir yoo xam ne nii nag yu ñaaw la yuy xew moo di ne hakimo li nga xam ne ni moom la rewi jambur am wala boog not ko wala boog di ko xatal wala di fa indi mbir moo xam ne ni xaajaat li la nekk waaye nag léegi liñ mujjee gis sax moo di ne dafa am ñoo xam ne nii nag dafa am ay mbir yoo xam ne nii moom la ñoo mbubboo ci wali yokkute yoo xam ne nii li nga xam ne nii moo di seen dalil am na leneen lu ko ronu luñ xamut eh, ci loo xam ne nii nag loolu la ñoo indi ne moom la ñoo jéem a eh, taxawal ci réew yi fii waaye nag li nga xam ne nii nag moo di révolution c'est di nit ñi li wécceeku yi nga xam ne nii moo fi am te itam nag ñu nekk ñoo xam ne nii seen xalaat màcc na bu baax ak lépp loo xam ne nii soxla nañ ko ci wàlli projet ci ay wàlli politique lii yëpp eh, tax nekk na mbir yoo xam ne nit ñi gis nañ ñooñu seen pexe yu lëndëm yooyu leen te nag liñ ci war a jàngee rek moo di ne nit ñi ci seen boppa ñoom ci suñ boppa ñoo war a taxaw nag téye jo taxaw jon na aar li nga xam ne nii moom lañ bëgg li nga xam ne nii moom la yàlla naataal ci réew mi fii ak suñuy dund ak suñuy bakkan ñu aar loolu ak itam aar suñu réew nga xam ne ni ñëpp dinañ ci xëcc te nag lii pour waar réew yi Gambie yëpp la nee na nag nekkut kenn rek koo xam ne nii moom rek moo mën a taxawal réew mi wala boog liggéey réew mi wala boog réewi Gambia dafa war a nekk ñoo xam ne nii eh, dañ leen di war a soxlu ci loo xam ne ni dañ ko war a eh, def ci mbir yoo xam ne ni dañ ko wéeral na ci wàllu yokkute ne na loolu du war a mun a am eh, pour nag seet nag lépp loo xam ne nii rek moo di li ñu xamee ci external forces moo di na ay yeneen groupe yoo xam ne nii dañoo jógee bitim réew dañ war a taxaw nag fogarlu bu baax a baax a baax ràññee xool suñ bëti bu baax ràññee ñi nga xam ne nii ñoo ci dëggu di ay xariti Gambia bu baax ñoo xam ne nii suñu xarit lañ du ñu nax wala du ñu rirantal su ko defee nag ñu mun a ànd ak ñooñu eh, xam ñi nga xam ne ni ñoo ñu bugg ak ñi ñu bañ te nag ci ko loolu nag moom président Jammeh ne mu ngi gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne nii dëgg dëgg dëgg ay xaritu réew yi Gambia lañ ak itam ñu ngi jàppale réew mi eh, ci niñ réew mi di doxee nee na ñu gërëm na leen sant na leen te mu ngi feddaliwaat kóllëreem ci saa yu ci nekk déggoo ak jàppanteeg ñoom. nee na nag dina am yoo xam ne nii benn tey lii aju nag ci yu doy waar ci ay ci addina si ak itam nag yeneen ay mbootaay yoo xam ne nii dañoo nekk ci ay tunda ñu xamee leen ci regional bodies ñooñu li ñoo xalaat ak ni ñoo doxalee nee na addina si war dañ war a yëg nag ak xam ne e, Gambian si de fi mu nekk waa Gambia ñor nañ bu baax a baax a baax ci wàlli politique ba kenn du leen mun a naxati gumbaloo leen ci wàlli politique te duñ nangoo lekk dara wala jël dara loo xam ne nii mu ngee jógee ci yi tubaab yi pour ñu jëm ñu ko forcer dugal ko fii nee na itam duñ nangu képp koo xam ne ni mooy taxaw fële di ñu soxlu naa ñu nii geen di defee wala nii geen di doxalee te itam nag mu ngee sàkku ci képp koo xam ne nii li nga xam ne nii moo la soxal moo di yokkute ak jëm kanam te ga nag nekk doomi réew yi nit ku ñuul bu baax pour nga bañ lépp loo xam ne nii nag moo aju ci waa bitim réew ñoo xam ne nii dañ taxaw di joxoñ nag pour nag indi eh, noteel wala gumbuxatal ci ni nga xam ne ni moom lañ dëkkee ak itam li ñu yàlla may e, ci wàlli suuf si fii pour ñu liggéey suñ africa fii nee na loolu ñu bañ ko te itam nag waruñoo nangu ñoo xam ne ni dinañu wax ay loi yoo xam ne ni loi yooyu lañ war a wecci